arrondissement de Diamniadio am nañu seen arrondissement de Diamniadio am nañu li nga xam ne mooy Diamniadio tey arrondissement de Rufisque mooy Rufisque bu Bargny Rufisque bu Est Rufisque bu Ouest Rufisque bu Nord donc ñu wax pour le département ci la commune bu Dieul la jeunesse de Rufisque la jeunesse de Rufisque le président Ousmane Sonko lañ ko am na Ndugal Ndugal boobu nag nañu fexe fay ko te incha allahu rabi dinañ ko fay président doo ma sa am na nga xam ne ne seen duwoo ko ci département bi incha allahu rabi danañ la jox quatre-vingt-quinze pour cent au niveau du département. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. jërëjëf président donc di nuyu monsieur le maire Oumar Cissé le maire Assane le maire Pape Sow DG. Daara Diouf ak ñi fi nekk ñëpp gis nañu seen taxawaay yi Pape Sow aussi donc vraiment macha allah léegi nag léegi nag xam naa ni yàkkamti ngeen ko dégg quoi <laughs> yàkkam yàkkamti ngeen ko dégg quoi. <laughs> du asalaamaaleykum mbokk Rufisque nuyu nañ leen ziar nañ leen dafa am lu ma leen bëgg ñaan comme léeg-léeg micro yi day xaw am problème mu volume dafa am bu ma bëgg def à partir de fii Rufisque balaa ñuy jublu ci leneen ma bëgg ngeen may ma dal ak déglu ma def déclaration boobu man ngeen ma ko may. xam ngeen euh, jamono ji ñuy wax am na lenn ci suñuy frère ak suñuy sœur patriote yu ñu agressé fële ca saint gaañ leen gaañu métti. ba ñu nga ca hôpital fi mu toll nii nee leen ma rek ngeen dal te bàyyi wax ji parce que li may wax dafa am solo may ngeen ma ko bi campagne bi démarré ba Parce que pour un parti qui est au pouvoir a été un parti plus que responsable ñetti agression def nañ ko Pastef premier jour campagne bi agressé nañ Pastef à Dakar Nous doxaat tuuti ñu agressé Pastef à Koungheul ba damm loxo kenn ci leader yi muy Malick Gakou tey ñu attaqué waat Pastef à Saint-Louis ak ay paaka ay jasi ay grenade lacrymogène ba gaañ fa ay xale lii nag responsabilité état bi la parce que réew mi dafa changé man maay premier ministre du Sénégal man am naa sañ-sañu en tant que premier ministre ma joxe ay ndigal jox ko ministre de l'intérieur comme ministre de la justice parce que ministre de la justice c'est une autorité politique c'est pas une autorité judiciaire pour quelqu'un qui est le ministre de la justice la femme indépendance nous avons encore des man Si je ministre de la justice poursuivre le péché. Amour sañ 5 procureur général kooku procureur pour nous poursuivre le loolu le ministre de l'intérieur sama gouvernement la nekk man avons ñëpp maa leen consulter proposer président de la république nous valider loolu mooy gouvernement du Sénégal. kon déglu leen ma bu baax li may wax liy wane ni réew mi am soppi mooy man bi campagne commencé ba léegi ministre de l'intérieur en tant que premier ministre. woo ma ministre de la justice en tant que premier ministre waaye en tant que candidat woo naa leen début campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ne ko Barthélemy jënd na ay ngànnaay déglu leen ma rek déglu leen ma déglu leen ma non non leen déglu leen ma li ma wax dafa am solo il faut ngeen di déglu yenn saa su ngeen animé rek day yàq li may nee leen teg rek suñu paree nañu animé début campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ne ko ci information yu wér jëng les médias, jënd na ay ngànnaay jënd na ay grenade jënd na ay fusil à pompe jënd na ay jaas yi te passionné wu lu dul di essayer attaquer ay convoi Pastef man nag c'est le candidat tête de liste Ousmane Sonko moo la woo jëlal say matuwaay pour loolu nous règlons rapidement agression bi njëkk qu'en premier jour campagne nous avons en tant que candidat wax ko li koy wax ministre de la justice en tant que candidat wax avons li ma leen Le temps, c'est un seetaan mi agression zéro arrestation nous c'est la faillite de l'État et c'est le candidat qui parle dama nous ñu xam ne ñun dañuy gérer état ute ñeneen en tant que candidat, l'État a failli à garantir la sécurité de, de, du parti passif qui se trouve être le plus grand parti du Sénégal et qui peut régler lui-même ses problèmes. Salon du Nord. y tey les parce que nous, avons nañu un nous ab convoi mu ab ñu yóbbu Sonko Sonko Assane Diouf wàcc ne ku fi wax Sonko ñu def la nous ñu génne seen nous yéen di ngeen gis image yi su ngeen demee ci réseaux sociaux yi loolu garaaw la ci réew mi woo naa nag ministre de l'intérieur nee naa ko depuis 15 ans dans ce benn waaye fi nekk ñu tuddee ko Barthélémy Dias mu xamadee xamadi dafa xamadi yem yaruñu ko waaye baayam bu dee baayam moo xamadi moom mënul bañ a xamadi parce que eh. na ma dégg bu baax eh. parce baayam yàgg ngeen dégg baayam di wax lu bon ci man ma noppi ne jaru ko waaye bu matoon li mu doon man ma mat ko doom di taxaw ci télé di wax lu bon ci man ak lu ñaaw waaye depuis 15 ans toutes les de violence benn waaye fi nekk di jaay ni moom EBM booy Dakar la dina tuuti ay nervi foog ni loolu mun na wëy. dama ne ni ki tey loolu jeex na Sénégal bis ni ki tey loolu jeex na Sénégal li na si campagne bi man dama ne woon à partir de damay dem def li mbit na Yoro Fula def Vélingara terminé en beauté à waaye fii la ñuy ñoom ñoom dootuñu ci réew mi gët sa gët sa jeexul ci réew mi de nekk ci nguur te pour ñu doon ay faiblard mais dootuñu nangu benn militant Pastef benn militant Pastef ñu koy jàmpaaka wala ñu koy dóor lacrymogène wala ñu koy gaañ parce que dans ce pays nag hypocrisie bi dafa quoi ah. bëgg éviter la justice des vainqueurs

léegi dañ jàpp ni suñ ñu poussé ba ñun ñu réagir sénégalais yi dañ naan ñoom ñoo def violence bi war ñu gannaaw waaye sénégalais yi mën nañu ràññee de ñun def nañu dix ans d'opposition bañee ne ci opposition dañ ne ñun du ñu mus a affecté kenn waaye droit de la droit a la résistance la ñu mus a wax du ñu affecté kenn waaye dañu toog di seetaan kuy dal suñu kaw. yéen ñëpp nag maa ngi leen di jox rendez-vous demain à Dakar. Baobab la ñu demee def suñu caravane Baobab. bu ñu tuddee parti militaire dañuy def suñu caravane. kooku la defee sama déclaration. dinañ ko duma. dinañ ko duma sur le terrain. dimanche ñu duma leen ci heure bi. mais lii dootul am Sénégal.

nga nit nit nit sa njaboot rek nga am te njaboot gi toog nañu cinq dernières années yi njaboot gi souffrir nañ torop torop torop ñu ñëw nag ba tey ñu yor nguur ñu naan njaboot gi dañuy continuer di leen agressé man may le responsable moral de ce parti ma toog di ko seetaan loolu jeex na tey kon la ca des nag Et naa candidat yi la parole wax nañ ko ba mu leer nañ élection bi yéen ñëpp xam ngeen enjeu bi en finir définitivement avec ces politiciens alimentaires nga xam de sàcc alalu Réumi, mi qui ont des intérêts stratégiques du pays à des étrangers clientélisme l'origine rek n'est fi man maa ko joxoon gannaaw yàlla mairie Dakar yéen xam ngeen ko. Barthélémy Dias mënul gagné benn quartier de Dakar man maa ko joxoon mairie Dakar waaye décevoir na ma ndax li mu mairie Dakar bàyyi leen man bi ñu dama ne président Diomaye yow xam nga ni li ñuy def ci mairie bourse bourse fictive yi ñuy def.

xam naa leen loolu ñemewoon nañ def ci yeneen jamono c'est parce que dañ leen ñu def loo wax ñu ne non on doit montrer qu'on est différent un pays nag on le gouverne dans la discipline dans le droit et dans la discipline mais ku ne xëy saaga Ousmane Sonko suba mu ngoon jëpp dara dina ci fekk loolu réew mi ñu réglé ko suñu bopp te mën nañ ko kon.

ñi néew ñi ci dëgg ñu ñëw rek dañuy ñëw yokku doole eh, ànd eh, eh, kon man gëm naa ni su doon 60 pour cent la amoon Rufisque gëm naa ni bii pas 85 pour cent di ngeen ko voté pour la liste de Pastef moom man li ma gëm kon gars jox naa leen rendez-vous à de demain waa Rufisque waa Kër Massar waa Guédiawaye waa Pikine boo fekk waa Dakar juróomi fan yi des ci campagne bi dinañ xam ni Dakar am na borom Sénégal am na borom te Pastef mooy borom Dakar moo borom Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum